Ah, di leen sant bu baax a baax ah, lenn rek ka ma jaxal waa Lu Xew TV dafa am lu ma ci bëggoon a wax tuuti rek Sénégalais bu yàgg Gambie daanaka fii yaro yaroo fii laa def suma yëpp mais leena laa bëgg a ñaan Sénégalais réseaux sociaux yi nañ ko bàyyi xel ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a day tas dëkk day tas mbokk xawma ma ciy bàyyi ah kaay Krépin Diatta laa bëggoon a wax Krépin nit la bu yàlla bind nit su la yàlla bindee jox la sa ñaawaay wala jox la sa rafetaay munoo weddi yàlla naan yàlla déedéet lana tax yàlla bind ma ma ñaaw borom bi lim xas ba bind munoo ko bañ yow boo bañee loolu rek yow mi ko bañ ba di ko sabote naan ne dafa ñaaw yow da dafa mel ni ne yow danga nga weddi yàlla. te yàlla bu lim xas ba bind kenn waru koo weddi yow boo weddi yàlla rek daa mel ni yow gumoo yàlla yàlla crépin noonu la ko binde ne ñaawaayam gi lay judduwale munu munut a changé kanamam bi munut a dem dagg kanamam bi changé ko nit la nu yàlla bind ne noonu ngay juddoo ku nekk yàlla bind na nooy juddoo ak nooy mel am na ñu rafet am jikko ju bon am na ñu ñaaw am jikko ju baax yàlla bu la bindee ne ñaaw ngay doon ñaaw ngay judduwaale noonu ngay judduwaale munoo changer sa bopp munoo munoo wax yàlla ne changer ma sama kanam bi ñaaw na sénégalais ni ñoo xaste dafa doy waaru dafa doy waaru man mënuma comprendre dama rus sax pour ni ñi xam ne ne man d'origine sénégalais la dama koy rus sax parce que nga toog ah, ñi ñi critiquer kii ci réseaux sociaux yi di ko wax lu ñaaw ba ay ñi ki mel ni ñoom DJ Drogba di wax ay ay jours yu mag yëpp di ci wax ah loolu c'est pas normal parce que bu ma bu ma seetlu bu baax a baax pas sénégalais rek am ay jours yu ñaaw wala nit ñu ñaaw am na dëkk yoo xam ne am na ñii ñu ñaaw ñoo xam ne ay nit ñu ay ay ay nit ñu valeur lañ waaw mosoo dégg kenn wax seen tur di leen saboter mais Sénégal mënuma comprendre lan la tax ñu war a di saboter xale bi di ko walloo xam ne lu lu lu neexut la si parce que match bi passé nii boo gisee boo gisee xale bi munta munta def euh, euh, performance bu baax because of ne luñ ko wax ne moom yëg na ko après le match le dugg gis yooyu loolu c'est pas normal nit ki ah drapeau national bim bim bim gàddu ah, kii di kii sol mayo di def lépp pour dëkk bi noo come on loolu waroo leen ko wax dara dara loo xam ne da koy metti loo xol parce boo leen ko waxee dara loo xam ne da koy metti loo su doon def cent pour cent day wàññi mun na def quarante pour cent parce que day nee ne dëkk bi respecté wuñ ma bon jarut ma rey sam bopp si dëkk bi Sénégal ñëpp a bokk ak baay ngir yàlla na gaay bàyyi critique yu bon yi ñuy def doomi jàmbur tiim ko di ko saaga di ko naan da nga ñaaw da nga def ni mel na daf la daf la def na loo xam ne daal xam nga munuma munuma comprendre ndax dafa saaga Sénégal wala dafa def leen yow ku sol sa couleur national dëkk mu muy muy jouer pour sa dëkk kooku waroo nangu sax kenn di ko critiquer kenn warut koo critiquer si biir yow yow mi sa boppa looy looy jóg di critiquer kooku loolu c'est pas normal ngay critiquer kooku ba ñëpp di si jot aduna bi ñëpp di ci wax di di ci ñaawlo loolu baaxut peut-être bu doon européen moo ko def africain noonu ñun ñëpp ay jóg di wax ne lii tribalisme tribalisme lii baaxut lii baaxut mais en tant que africain sénégalais nga def di ko def sa moromi sénégalais hmm. non non non va pas man mënuma comprendre lan la tax sénégalais ñun ñu mel nii loolu laa mënut a comprendre waaye nañ jéem a seet ñu changé wat suñ jikko yi réseaux sociaux yi ñoo dugg nii ñu xam la la lan lañ fay wuti. nit ki ah xaw ma nuñ koy waxee daal privacy dafa baax nit sutura sutura dafa baax torop torop torop sutura dafa baax doo gis doomi aadama nu mel rek nga wax moo tax ñu ne yarin ci kër baax na éducation éducation la ñu wax éducation base baax na torop nit da ngay yaru da ngay da am éducation yi kër nga am éducation ci école mais pas ne da nga jàng rek am nga éducation non nit dañ koy yar mais dafa mel ni ñun am na ñoo xam ne si ñun daal non non non mënuma comprendre quoi dañ war a jégalu Krépin ñu ko wax ñu ñu ñu ñu toog di ko critiquer di ko ña di ko saaga di nan dafa ñaaw dañ war a génnaat ñu jégalu ñu tuub baalu xale bi buñ ko baaloo dinañ am lu leen nee parce que am na nit ñoo xam ne doo leen wax lu leen naqari boo leen waxee nu leen naqari di nga ko gis te loolu moo baaxut nañ génnuwaat comme li Sarlo Faye wax nañ ñëpp génnuwaat ah ñu dem si télé yi dem si rajo yi ñu jégalu ko parce que mbokkam yi ñu ñu ñu ngi leen ay dégg ñoom ñuy wax façon yooyu nañ delloo si télé yi wala si rajo yi si réseaux sociaux yi ñu wax jégalu booy bi ñu tuubal ko xam ne ne ñoom ñoo ko tooñ at least su ko defee dina giifal loolu laa am li may bëggoon a wax rek jërëjëf merci beaucoup mon frère.